wane ni jigéen ñi dalaa ñor monsieur la maire lu jigéen ñu soog nga dugal ci sa loxo ku xew la nga teew muy naqar di bànneex lu waay nekk lu nekk rek boo ko yëgee def nga ci sa loxo xanaa loo yëgul waaye fu sa junni fanaan soxla la yëgul ab tab nga sa baay nga nul loo dégg faj ko xaw ma loo fekkelu mbaa loo wute monsieur le maire da nga fekk ñu yor sunu mouvement muy mouvement des veuves ñi nga xamante ni ñoom na seeni i kër wàññeeku nday faatu mi toog di responsable des femmes ci biir gox bi wëlbatu ko yor mouvement bi nga ñëw di seet nday faatu xamoo woon ni jour boobu dañuy def rencontre nga ñëw fekk ñu ana ana veuve yi dara ñu nag ndax bëgguñu tàllal loxo kenn bëgguñu ñaan kenn nday faatu lu mu am wàcceel nañu ko lu mu am jox nañu ko lu mu am rek ñun la ciy xalaat ndax encadré na ci suñuy doom bu ubbee ci des classes jotee mu nga ca xale ya bu tabaski jotee mi ngi ci xale yi bu korite jotee nday faatoo nga ci xale yi soutenir ñu ñàkk ba ñu namm ñu dara ku ñu gis rek da ngay yaakaar ne yi am nañ borom kër waaye moom mi mooy suñu borom kër nday faatu mi mooy suñu borom kër ñun veuve yi nga fekk ñu nag ci suñu groupement ba ñu toog di waxtaan nga dem bay génn man la kaay da nga fee ñëw fekk fi loo xamante dañ laa waroon a nga ñëw yàllaa la indi ñun veuve yi ñoo ngi dama ni la ba nga ande ndey fatou ba ci biti ba ko joxe enveloppe bi mënoon ko bank ci bopam waye dafa ñëwaat talal ñuko ko jiitalaat la ni monsieur le maire mo len jox temps dama ni la boko deful woon la ko waxal duma bëgg ànd ak njaago ba sant gomis yaa ko def ma wax ko waw bëgg xaritoog njaago duma ma tax sant gomis da nga ko def ma wax ko monsieur le maire ca kaw ca kanam ci lu bax lepp lo yotu diko ko indi ci gox bi ya na la ci yalla defal jàmm

war na ne ah woote bi ñor na leen ah, woote bi nag woote jàmm la rek woote fexe nu ñu jëkkalaat suñu toogaay ngir gën a mën a jëm ci kanam ndaxte euh, communauté ak commune boo ko tekkee rek da ngay wane ne lu mu bokk la te tey li nga xam ne nii bëgg nañ ko waxtaanee ah ñu ñëpp ñoo ko bokk nguur gi daf ko jagleel njabot gi wante nak comme daanu dajul suuf mu ne ñooñu faw ñu am ñun ci tan loolu defe naa ne bu ngeen fàttalikoo programme boobu dooroon na depuis 2013 mu dajanteeg le président de la république son excellence monsieur Macky Sall ñëw fi en 2012 et 2013 mu taxawoon programme boobu ah ba léegi nag programme bi mi ngi dox mu amoon ci ay njub yu am solo nga xam ni moom moo taxoon mu sos programme bi bari woon na ci ay réew nga xam ni programme boobu doon dafa dox ci aduna fu mel ni Brésil ak yeneen réew wante programme bi dafay nekk programme bu spécial euh, ndaxte président de la république bu mu ñëwee dafa jàpp ne euh, réew mi mi ngi am alal mi ngi yokk ndaxte léeg-léeg di dégg ñu naan suñu PIB dafa yokk maanaam li nga xam ne nii dinañ ko yokk suñu alal te nation bi yëpp moom ko at mu nekk dafay yokk léeg-léeg mu nag mu deltu ginnaaw mais bi fi président ñëwee boobu ba léegi li mu yokk moom moo ëpp daanaka benn yoon bi mu wàññeeku rek moo di feebar boobu ñu wax Covid amee ah, mu ne nag alalu réew yi dañuy war a fexe. ginnaaw mi ngi doon yokk yokk bu bari demoon na ci ba téeméer boo jël daanaka mën nga ca yokk lu toll ak juróom-ñaar loolu moom ci gënoon bari mais bu mu wàccee ba wàcc ci Covid bi daanaka téeméer boo jëloon daanaka lu néew moom moo ci dolli ko ñi ngi naan benn bu toftal benn loolu mais bariwutoon noonu mais terewul mu ne alal jooju bu yokkee dafay fexe di ko delloo ci njaboot bi mu nattoon nag lu xaw a takku ci njaboot daanaka toll woon na ci deux cent cinquante mille familles ñu tasaare ko ci réew mi mu ne dina fexe ah nii kat mu am lu mu leen jàppale loolu moom moo ko taxoon jóg maanaam alal réew bi li mu yokk mu am lu mu ci jëlaat ginnaaw li xam ne nii dafa war a dem ci ñu liggéeyaat réew mi lii dem ci santé lii dem ci mbay mi lii dem feneen mu ne lii nag dinaa ko duunale jibay mi nga xam ne nii seen loxo jotewul seen ginnaaw loolu moom moo ko taxoon jóg mu amoon nag ay nattukaay yu nga xam ni dugaloon na ko pour nit ki mën cee jot bokkoon na ci ñi nga xam ne lii dañoo xaw a néew doole néew doole boobu nag boo ko waxee ah, mooy koo xam ne li muy am bu weer dee bariwul wala bu weer dee tamit yaakaarul dara te war a faju war a yóbbu ay doomam école ak leneen ak leneen ak leneen war ko boo demee ci àll bi dafay doon ñu xam ni euh, li ñuy wax livelihoods maanaam jumtukaay yi nga xam nii dañ koy jëfandikoo pour mën a yokk seen am-am ci at mi seen revenu annuel euh, daanaka loolu amuñu ci dara boo boo koy xayma da nga naan amuñu machine bu ñu béyee amuñu fas bu leen takkal golo wala ñu xamul golo ñu ne mooy machine yooyu ñuy béyee rek wala amuñu nag bu nga xam ne nii bu ko ratee dante ñu mën a am dara ci meew jaay koog yooyu ah, boo ñëwee ndakaaru tamit daanaka mooy ñi nga xam ne xëy ñu woon wàcc ñu ah, mu tàmbali woon ko nag jëloon alal ju bari dugal ko ci ah, fii fi nga xam ne moom mooy njaareem Limaamulaay defe naa ne programme boobu am na ñu fi teew mais umple wuñ ko mu doonoon nag ndimbal bu am solo naa toll woon na ci vingt cinq mille jamono di dox lu bëri jaar si parce que am na yeneen programme yu ñuy tuddee philosociaux yu ko gungewul ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba biñ eggee ci Covid bi mu gis ne koo xam ne nii amul salaire bu xëyee dina mën a am dara li mu yaakaaroon rek moom mooy day gën moo xam mu dem ci ab jibam ab marché ut lu mu fa jaay mbaa mu génn dem atelier am lu fa liggéey mën koo jaay ci ñaari fan mbaa ci ñetti fan ñooñu ñëpp ñu ne leen toog leen ah jamono boobu sëñ mu gën leen dimbal bu am solo ci wàllu denrée ne nañ ko dimbalee askan bi mais na bokk ci ñu ciy ëppale ñi nga xam ni dañoo dañ leen limoon ba xaatim leen ci ab xët bu ñuy wax RNU registre unique national wala registre national unique ñooñu la bokkoon na ci ñi ñuy seppi woon tànn leen dimbal leen xëy na sax ci jamono boobu ci la citoyen yu bëri xam lan moo nekk ci biir xët moomu lan moo nekk ci biir registre boobu mais bi ñu ubbee téere boobu ba jàngat ko pour war a xool ñi ci yeewoon ndimbal bi ñu demee ba ci biir gis nañ ne ah séddale bi baaxoon na lool ñoo ngi delloo jukkal ak jaaraama ñu ko defoon mais amoon na tamit ay rëq-rëq te mbiru doomu aadama la mais rëq-rëq bi nga xam ne moom moo ci gënoon fés gënoon cee ràññeeku dafa xaw a mel ni séddale cekkeen ak njaween da ngay dugg ci benn famille defe naa bii day nekk bàyyi bii nekk rakk bàyyi bii nekk soxna bii nekk ñaareel bi soxna bii nekk dox bu jëf takk loolu nag dafa xaw a dafa xaw a jooy maanaam dafa xaw a deme boor ndaxte boo génnee ci kër googu génn dugg ci kër gi mu dendal da ngay gis nañ ñooñu ñoo ko gën a yeyoo fopp mais amul dara lu nga xam ne nii war na faa mën a dugg parce que fa ñu war a sukkandiku pour boole leen ci ñooñu ba dañ leen a fàtte moo xam dañ leen a fàtte ci fàtte leen wala dañ leen a fàtte fàttelu wala xëy na dañoo bokkul woon wet bu ñu féete woon te loolu nag président bi nga xam ne nii moo ko xalaatoon loolu taxu ko woon jóg président bi mu koy jógal dafa yëkkati baat bu solo am solo boo xam ne nii ñu koy wax yemale yemale nag bokkul la ak dendale bokkul usi ak xaajoo waaw te lu ñuy natt ba mu yem ku nekk maanaam la nga yeyoo rek ñu jox la ko loolu moom moo taxoon président de la république ne nañ ko joxe ci anam boobu mais bi ñuy defaree séddale boobu ci Covid bi ba pare dañ ne ah lii kat gis nañ ci ay jumte yu bare bare bare te buñ continuer nii ñi ci doon jëriñu rek ñooy woy di ci jëriñu bàyyi ñeneen ñun xam ni yeeyoo nañ ci ñu ne notamment ministère bi nga xam ni moo ñoom lañ ko dégg ñu ne dañuy toog buñ ñu toogee ab diir ñu fexe mbir moomu nuñ ko mën a càmbarewaat gën ko mën ko delloo si ñu ko yeeyoo koy wax validation loolu ñu def ko def ko defaat ko ba defaat ko ba jamono yi passé président de la république ci mbaaxam ne ah mbir mi kat bu fekkee ne dañ ko yemale fa mu doore woon 2013 rek ñu ko jubanti gaa mën naa baax léeg jubanti bi mooy ñu natt ku ci nekkoon ba la la gàllankooroon wàcc na la ñu ne nañ lañ la génnee dugal keneen koo xam ne lii ah xëy na jamono ba ñuy joxe mënoon na ko mais ci diggante bi am na lu ko dab kooku na dandu keneen dugg loolu la ñuy wax validation mais ñu ne loolu doyatul léegi dañoo toll fu nga xam ni dañ ko war a gën a mën a yaatal maanaam buñ doon joxe benn ñu fi xëy joxe fukk fanaa cent cinquante mille familles yooyu président de la na ko bu baax a baax a baax te loolu nag moom may aussi tamit tey njaareem mu am ci yokkute bu xaw a takku toll ci daanaka mën na toll nañ ci daanaka ci téeméer ak juróom fukk daanaka ñu ne nañ fexe loolu bu ñu ko dollee ci njaareem parce que njaareem dañ koy séddale ci séddale bu njëkk bi daf cee néewale woon lool ginnaaw bu nga xamee ne ni mbir mi jooy na féete wet néewale woon na ci lool ñu ne nañ fexe tamit loolu duñ ko càmbarewaat ba gën koo jubanti mais dolliwaat ci tamit bu ko defee mu gën a yaatu mais defe naa ne soxna si soxna may mën a dina ci ñëw léegi luñ ko gën a jubbanti gën ko yaatal dañuy fexe également tamit gën ko xaw a yëkkatiwaat tuuti ba mu méngoo ak li ñuy wax fii njëgi jamono toll loolu également tamit effort bu mag a mag la bu ci autorité yi def baax na aussi tamit euh, boo toogee di wax ci xéwal bu xam ni président de la République moo ko indi lépp lu cay baax nga leeral ko bu population yi xamee ko noonu loolu nag moo tax ñu ne nag balaa ñoo tàmbaliwaat nag xët mu bees moom nga xam ne ah dañu ko bëgg a ubbi ngir jubanti yokkaat ba pare yëkkatiwaat aussi tamit tolluwaay bi ñu ne ñi koy saytoo maanaam di ko superviser di ko encadrer ñu indi leen ñu jàkkaaroo askanu njaareem ñoom ñu jël kàddu leeral leen ko ba mu leer loolu nag boo leen bëggee indil askan wi faw am ñoo tànn ci seen biir indi leen moo tax ñu ne bu ñu fàtte délégué des quartiers yi ñu woo seen président ministre yi ñu président Sylla defe naa ñi ci amul gàllankoor tey ñëw nañu teew nañ ko defee daal ñu déglu liñ ci war a delloo ci quartier yi ñu delloo ko ngir ñu ñëw mun koo dégg ci la ñu woo tamit bàjjenu gox yi ñu ñëw ñoom it seen présidente yàlla na ko yàlla bëri wér bu baax wax na ne si mais si fi soxna Mbarka teewee rek mel na ni ñëpp teew nañ fi moom it ñëw na fi conseil municipal yi aussi tamit yëgal nañ ko ñëpp am nañu fi teew

mais ñi fi teew defe naa ne représentative nañ mate nañ ko bu ñu dégloo daañu fi jëlee lu nga xam ne nii képp ku ñëw doon incha allah dañ ci jot. ginnaaw nag bu waxtaanee ba pare kuréel yooyu ku ci nekk daañu la jox kàddu nga wax bu ñu paree ñu dëj jotaay bi appalaat nag app bi nga xam ne moom moo am solo yokkute boobu nga xam ne am na ci bu ñëwee fii ci askan wi ñu teg kuréel bu nga xam ne nii dafa war a taxaw séddale ba muy yem.

ànd ak collaboratrice am yi nga xam ne ñoom ñoo bokk waxi naan ñu daal te benn pàcc bi soxna may mën a yor ko ñu amal jotaay bi pour waxtaan ak loolu moom moo doon nga xam ni mooy muxaddima bi defe naa yàlla sa sekk ñu leen di sant bu baax. monsieur le maire monsieur le maire ñu tàcc waxtu bu baax leer na nañu waxati nga lu am solo. toog sa kër. weer dee ñu fekk dafa ni lii yaa ko moom. Ah. te xëyal gontoo ci nguuru Macky Sall dong la am. nañ ko loolu waay. loolu nag dafay am lu ko waral. mooy président bu bëgg réewam. président bu am yërmande waaye président bu bàyyi xel askanam. dëgg la bu ñu guddal. Ibrahima dañuy jébbal kàddu gi rek. Adja may mun a. waaw. su ko defee moom itam mu gën a ci biir nii gën ko faram fàccee. waaw ndax nag dafa am loo xamante ni askan bu soxla. waaye fii ci commune Ndiarème Limamoulaye bàjjenu gox yaa ngi nii toog da nee na a sa leer bàcc leen loolu bàcc leen seen bopp loolu nekk loo xamante ne nii lu dara sa lieu la nga am yéenee def booy def nag dañoo war a feeñal def-def yi ngay def kon monsieur le maire jërëjëfati jërëjëfati ñuy nuyu de passage Ba nga xam ne wax dëgg yàlla jàmbaar la ci waar bi asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo monsieur le maire commune monsieur Mor Mari Gueye di ci son bureau municipal bi nga xam ne monsieur Bass Diakhaté mooy point focal euh, lépp lu nga xam ne mooy programme bu sécurité familiale ak li ko ëmb di nuyu bu baax a baax madame Thiam di adjointe au maire de nuyoo liggéey bi la fekk sa loxo di nuyu tous les membres du bureau municipal adjoint au maire yi fi teew yëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu bu baax a baax conseil municipal yi fi nekk ñu góor ak jigéen di nuyu itam délégué de quartier yi te nga xam ne sama liggéey Pape la moo leen représenté ak délégué yi fi teew ñoom ñëpp

di nuyu bàjjenu gox yi di ñaanal yàlla présidente yàlla na yàlla oyofal yaram wi di nuyu aussi relais communautaire yi waaye di ngeen ma may aussi ma beral nuyoo relais yi nga xam ne ñooy liggéey ci programme bi relais yi liggéey ci programme bourse de sécurité familiale Adja Barka madame la maire teew fi Adja Bel Sega Diadio Bana teew fi Adja Fama Seck teew fii Adja Aminata Ndiaye Adja Anta Naar Gueye ak Adja Seynabou Ba yàpp naa ne euh, ñu ngi liggéey bu mucc ayib ci programme bi fii ci biir commune bi di nuyu GPF yi présidente groupement yi di nuyu association des personnes handicapées di nuyu ASC di nuyu itam ñi nga xam ne bourse bi ci ñoom la jëm ñu tudde leen bénéficiaire monsieur le maire nous lay jaajëfal bu baax a baax ci ni nga dooree waxtaan bi mel na ni solos waxtaan si xam nga ko wax nga ko leeral nga ko liñ ci defee xanaa dolli ci tuuti ndax témoignage yi fi dégg ak liñ fi jot a ak yow bi nga fi yéegee ak léegi ah ku ne xam na ne euh, acteur de développement docteur ndax li fi témoignage yi fi jib euh, ku jege sa askan rek moo moo mën a xam lan moo nekk ci askan bi échangé nañ ci en tant que premier adjoint au maire sortant tey yàlla dogal nga nekk maire sa liggéey ci gox bi moom la la askan bi delloowaat moo tax monsieur le maire tey ñu fal la ci bopp commune bi lay ñaanal yàlla aussi sa yan mi nga xam ne moom la la askan bi yan yàlla diis bu diisee aussi yàlla nañ ko yàlla teeñal nga tàmbale ko bisimilahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin am ci ay mandat yu bare bare ci barke yonent bi ñëpp fekkee détail euh, di nuyu aussi sama naataangoo kii toog Seyna bu Niang euh, Fatou Niang moom itam mu nekk superviseur fii si commune u Wakhinane Nimzatt comme Wakhinane ak Ndiarème ñoo deene man may collègue am di naataangoo te yàlla dogal itam commune u Wakhinane doy na rëyaay boo xam ne maa ngi liggéey fii ci commune Ndiarème waaye maa ngi liggéey ci commune Wakhinane Nimzatt maa ngi moom ñoo fa bokk nekk kon dafa jaadu tey bu ma ñëwee ci programme bu njëkk bu mel nii ñu daje fi ah ma présenté leen ko ndax yoon wi dafa yaatu terrain bi yaatu na kon nag euh, ñu ngi kontaan bu baax a baax monsieur le maire euh, di wax na rek fi ñuy tàmbalee monsieur le maire di wax na ko ci biir wax tey li ñu fi dajale monsieur le maire wax na ko mooy li ñuy wax RNU RNU mooy registre national unique bu ñu koy wax nag ñi bari seen xel day jàpp buus waaye dañ koy léral tay faram-fàcceel ko RNU moo di lan euh, moo di li nga xamné état du Sénégal daf ko jël jël daf ko jumtu way bu nga xamné Euh, maanaam daf ko institutionnalisé kuréel la ko def kuréel boobulee yàlla dogal bépp doomi aadama bu nga xam ne sa loxo jotul sa gannaaw wala boog nga tollu diggante nga nekk ci gox goxaat yu fasanti ko ci Sénégal ñooñu le ci biir quartier yi ñu dëkk ci biir dëkku kaw yi ñu dëkk tànn nañ leen fa ñu ne ñii ket ñu jare jàppale lañu ba ñu génn ci lañu nekkee ndax ku ne xam na ne képp ko xam ne sa loxo jotul gannaaw tey yàlla mën na dogal ëllëg sa loxo joti sa gannaaw képp ku nga xam ne tey tollu nga diggante yàlla mën na dogal aussi tollu diggante boobu nga génn ci loolu moo tax li ñu fiy waxtaane tey mooy registre unique national registre unique national pañe bu nga xam ne ñooñu le ñëpp ñoo nga ca bës bu jotee nag benn programme ñëw ci ñooñu la ñuy di yóbbu di leen bind ñuy am lu nga xam ne dañ koy dimbalikoo ci seen jafe-jafe yooyu ngeen ñoo am ci seeni wàllu dundi tax na ba euh, président de la république le président Macky Sall lii bu amee dañ ko koy santé dañ ko koy santé ci kaw euh, moom yàlla dogalee mu nekk président de la république dafa wax ne man doomul euh, dëkk laa yàlla dogal samay wayul seen loxo jotu woon seen gannaaw xamoon naa la ñuy dund ba may jàng ci ay jafe-jafe kon bu ma nekkee tey président de la république ni ko yeneen dëkk yi amee man dinaa ko indi fii ci sama dëkk ngir mën a jàppale parents yi nga xam ne itam seen loxo jotul seen gannaaw moo tax ci benn li ñuy wax décret dafa décrété en 2021 Euh, ci di 52 bu 2 août 2021 ci le décrété registre unique consacré ko manam tay mu jagleel ko li nga xamné ne euh, ciblage de base bi ciblage de base nag buñ koy wax mooy euh, tanef tanef ci gox yi nga xamné bép ku nga xamné sa loxo jotul sa gannaaw rek ngi ci biir ci Sénégal ñu ne euh waxna ko sax RNU pour ñi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw wala ñu doon diggante ñu ne naka la ñu koy tànne RNU buñ koy tànn wax naa ko sant ci gox goxaan yi la ñuy delluwaat dem seeti délégué de quartier yi wala chef de village yi àndandoo koog bànjadu gox yi àndandoo koog service yi nga xam ne moom la fi état ñooy tànn ña nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw wala toll nañ diggante ñu war leen mën a gunge ba ñu génn ci jafe-jafe yooyu tax na Euh, loolu le dina leen jàppale ba nga xam ne ëllëg ak si biir dinañ mën a génn si jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu doon jànkonteel euh, solo si nag maanaam objectif bi li tax mu jóg RNU boobu dafa di buñ koy def RNU dañu bëgg bépp programme boo xam ne état taxawal na ko ngir dimbali néew ji doole ji ca foofu la ñuy dem jël fa ay nit mën leen dimbali asalaamaaleykum ñi ci gannaaw. dañoo bëgg ngeen teewlu. parce que li ñu fi dafa am solo dafa suñu soñoon kenn ku ci nekk la tax nga bàyyi sa temps ñëw toog soo nga xam lu dañ dañoo bëgg ngeen teewlu ndax monsieur le dafa wax am solo ci njëlbeen nga lu mel ni tànneef duggoon na fi waaye tànneef ba xëy ne. am na na mu doon demee ba ñu ci war a jot jotuñ ci kon buñ leen woyee jotaay da ngeen war a teewlu ngeen xam naka la ak nan la moo tax ñu ne euh, RNU boobu ñuy wax dafay tax képp ku nga xam ne euh, programme bu état ñëw na pour dimbali ñooñu le fa lay jaare fa la ñuy tibbee nit ña bourse de sécurité familiale ci RNU lañ koy jëlee tànn nit ña nga xam ne ci seeni enquête ñoo gën a euh, sonn maanaam ngeen baal ma ci kàddu bi ñoo gën a am jafe-jafe pour dund ñu daal di leen jox programme bu yokk koom-koom itam ñëw na fi ñooñu lekk ci RNU ba lañ leen jëlee jox leen yokk koom-koom programme bu bi nga xam ne rebek yi ñu doon wax ñëw na fii ci RNU boobu lañ dem tànn fa nit ña euh, dugal leen ci ak yeneen ak yeneen bi fi Covid bi ñëwee aussi ci RNU boobu. képp ku nga xam ne yaa ngi ci biir euh, d'office la woon maanaam euh, euh, kenn amul woon naataable ne kooku le dafa war a am ci ndimbali Covid bi doon joxe kon loolu le mooy élu mooy pañe ba nga xam ne képp ku ñu xalaat ne yaa ngi ci gox goxaan yi nga toll ci ay néew ji doole wala sa loxo jotul gannaawam kooku le dañ koy daal di dugal ci élu bi beneen bi moo di tey nguur bu doon liggéey ak benn programme. ne damay seet ñi nga xam ne ñoo néew di doole balaa muy fay kii di fay kële di fay kële ne ko càmbaral ma day daal di am benn base de données benn panier bu nga xam ne ñépp rek fa la ñu nekk fa la ñuy gaawantu dem ci bu du du laaj ay étude wala ay xaar day daal di nekk lu gaaw beneen bi euh, muy euh, ñu mën a fexe itam bu dara amee rek monsieur le maire bu nekk di wote service technique monsieur le maire di woote préfet monsieur le maire di wootee bàjjenu gox yi na leen indi leen ma indi leen ma lu nga xam ne daal lu ñu teg la ba nga xam ne buñ ca tolloo rek képp ku nga xam ne war ngaa mën a bénéficier wu ci benn filet social rek foofu lañ lay dem di jëlee xam naa waxtaan bi doon na gudd pour ñu mën leen expliquer bu baax mais temps bi xoj nañu temps bi xoj nañu maanaam ñu commencé tax na ba pour ngeen xam ne rek organisation bi

demal ma ci jotaay ba mais moom ci bëgg na ak jege askanam ak xam solo si ñuy liggéey moo tax mu ñëw toog bi tey ngeen may bu jógee ci comité communal dañuy daal dem ci comité de quartier ndax bu jógee ci commune ba ci gox goxaan yi ci quartier yi lay jëm ci ñoom président monsieur Sylla ak ñi muy àndal kon ñu jàpp ne ciblage bi maanaam tànneef bi naka lay demee tànneef bi dafay nekk ciblage géographique maanaam gox goxaan bu nekk li wax ANSD agence nationale de la statistique et de la démographie mi nga xamné enquête bu jot moo koy def ren jii jàpp naa ne ci mois de mai am nañu doon dugg ci kër yi di enquête yi di saytu population yi di xam naka lañu tollu naka la dundé lan moy seeni ko ñooñu lé euh, ñom ñoo jitu ci li nga xam ne mooy ciblage géographique yi gox ko xaar bu né daa xam saytu nañ nit ña saytu nañ ni ñuy dundé saytu nañ seeni koom saytu nañ seen tollu diggante. saytu nañ itam euh, seen seen ñàkk seen loxo ñàkk jot seen gannaaw saytu nañ si seen koom bu bari ak wala seen ñàkk koom li muy indi pour ñu xool euh, euh, wax naa ko léegi tollu diggante ma naka la fa toll ci gox boobu wala ñàkk koom ba naka la toll ci gox boobu biñ jógee ci ci tànneefu ANSD boobu la dañuy daal dem ci ciblage communautaire ciblage communautaire bokk na ci li nga xam ne moo ñu fi dajale tey

dañu koy delloowaat ANSD ma nga xam ne moo doon enquête delloowaat ko Senum SA Senum SA nag bu ñu ko déggee day nekk euh, li ñu daan wooy ADIE mooy agence de l' informatique de l' état nga xam ne bépp doomi aadama bu nga xam ne mi ngi dund ci biir Sénégal lépp luy say données personnelles boo buñ paree dañ leen koy denc waaye nag ci kaw liggéey boobu niñ koy liggéeyee day ànd ak sutura du am am xaawi sutura kenn du xam kan moo fa nekk amaa ña nga xam ne ñoo ngànk liggéey ba ñu ko liggéey wax naa leen sànq comité communal de ciblage comité communal ba nga xam ne mooy tànn mooy jotaay bii tey ñu tooge maire moo ko jiitee wala son représentant mais ñu sant yàlla ba nga xam ne maire ñëw na fi toog bon bok na ci aussi comité de représentant commission action sociale ou mairie L'état, ndax li tax euh, président commission action sociale au mairie képp ku jaxlé ci mom ngay jëm mo yor sociale ou mairie kooku le day bok ci comité bi bok ni ci comité bi aussi représentant des jeunes bok na ci représentant des femmes service technique et déconcentré action sociale départementale donc na ci service développement communautaire bien nga le ministère qui la bokk bon na aussi euh, représentant chef de euh, euh, délégué de quartier Vous êtes ci dëkku chef de village bokk na aussi représentant imam Bon na représentant curé qui gox yi nga église bokk ci association des personnes vivant avec un handicap Manam ñi nga xamné yalla dafa dogal dañuy dund bokk na ci aussi euh, yeneen i nit yu nga xamné amal nañu gox bi solo amal nañu askan bi amal nañu askan bi euh, euh njëriñ bu baax a baax lu ci melni ay APDC ay relais ay bàjjenu gox ak ñep donc ñom seen rôle moo di rek lepp lu nga xamné moy mooy muccal ayib tànneef boobu ñoom dañ ci taxaw buñ ca joggé nak ñu dem ci comité de quartier comité de quartier bima ma leen wax moy chef de quartier moo fay nek élu locaux yi manam conseils municipaux yi nga xamné ne ñu ngi ci mairie té ñu dëkk ci quartier dañuy bok ci comité de quartier bobu directeur d'école ba nekk ci quartier ba wala enseignant bu fa nekk moom da ciy bokk représentant OCB manam kuréel yi nga xamné ne ñoo nekk ci gox-goxaan yi muy organisation de femmes muy GPF GIE muy ASC muy AP, association des parents d'élèves wala imam curé itam dina ci bokk relais communautaire bàññi du gox APDC ak beneen nit ku nga xam ne bu bokkee ci comité bi am na lu am am solo lu nga xam ne mën na lañ ko doolee mi ngi mel ni ñun ñi ñuy superviseur di yiyee ci programme bi ci gox ya ñu dëkkee buñ demee ci quartier ñu dëkk dañuy bokk ci tànneef yi programme bi may nañu ko léegi nag processus bi maanaam euh, doxalin bi tëralin bi ñu ne euh, bu ñuy euh, beesalaat RNU day nekk ci ñaari fànn à tout moment RNU ñu ngi koy beesal jamono ju nekk ñu ngi koy beesal ndax tey RNU mën nañ ko jël teg mais yàlla mën na fi wàccee lu nga xam ne jafe-jafe la kenn ñaanu ko yàlla calamité naturelle wala sinistre yu nga xam dina tax ku ci bokkul woon te jafe-jafe boobu dab la mën na la dabale dugal la ci ndax service action sociale mooy demander à ce que ñu dugal la fa su fekkee dugg fa woon jamono bi ñuy jël

waa quartier ba ñooy wax bu ko jaree ñu dugal bu ko jarul itam ñu seet keneen ka nga xam ne moo ko gën a yooyee ñu dugal ko kon ñu ne loolu mooy erreur waaye yàlla dafa dogal ren bi euh, RNU bi président Macky sàll ne dama koy yóbbu ci un million de ménages RNU mi ngi nekkoon ci ay quatre-vingt-treize mille ménage juróom-ñeent fukki junni ak juróom-benn junni ak yu teg mais ren dafa ne da koy yokk

rawante naa ñi nga xam ne seen loxo jotu woon seen gannaaw daf leen gën a nasaxal daf leen gën a ñàkkal doole loolu le moo tax moo mu ne pour loolu leen ñu mën cee mën cee xeex dañuy daal di rek yokk ennemi bi ba nga xam ne ña nga xam ne bokkuñ ci woon ñu mën leen ci boole beneen bi mooy yoon bi nga xam ne ci lañuy ñuy jaar ngir mën a am euh, ñetti euh, phase de classique de ciblage maanaam am na ñetti euh, pàcc yu nga xam ne bu jëkk ba noonu lañ daan tànnee euh, loolu leen muy ciblage géographique wax naa ko sànq gox bu nekk am na luy fay jël ciblage communautaire maanaam ci biir askan wi itam ñooñu le dañuy jël ak enquête yi nga xam ne moom la ANSD di def wala banque mondiale di ko def nga xam ne rek yooyu yëpp benn la fi woon donc ciblage géographique bi buñ koy wax jaar naa ci sànq mooy ANSD wala banque mondiale moo koy moo koy joxe résultat yooyu euh, mu am ay projection yu ñu doon def en 2002 li taxoon projection yi ñu koy def maanaam ay mébét mébét yi nga xam ne dañ ko doon def en 2022 ci croissance démographique dañu seetlu ne euh, RNU bi ñu ko fii indi en 2013 diggante bi askan bi yokku nañ yokk bu ama am solo te bu askan bi yokkoo itam dañuy jàpp ne rek du ñàkk jafe-jafe bi gën a am ci dundinu askan bi état gaal ñu ni def lu mu mën mais crise yu mag yooyu bu fa jaaree day gën a nasaxal kàttanu ak koomu askan bi ba moo taxoon nag ñu ne dañuy yokk la nombre bi nga xam ne ñoom dañuy inscrire ci RNU bi bi donc quota bi nu ñu koy déterminer ci commune bi euh, dañuy quota bi dafa tuuti woon trop trop trop par rapport ak commune Ndiarème Limamoulaye mais bi ñu saytoo gëstuwaat état du Sénégal ak commune bi ak monsieur dañu xam ne quota bi tuuti na te soxla saa ngi fi tax ba ñu daal di jël lu tollu ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeent fukk ak juróom-ñeent presque ñetti téeméer ak euh, juróom fukk yu nga xam ne ay nit ñu bees lañ yu war a bokkaat ci élu bi pañe ba nga xam ne ca la ñuy tànnee nit ña kon jàppale ne tey commune Ndiarème Limamoulaye am na cent 349 yu bees yu nga xam ne war na yoo dugg ci RNU bu ngeen demee ci département de Guédiawaye bi ngeen nekk am na commune yoo xam ne kenn joxu leen dara kenn dolliwu am na commune yoo xam ne peut-être sax kii ma wax ko fii la ñu am kenn dolliwu leen am na commune boo xam ne da ngeen dende moom xam ngeen ñaata la am ñaar juróom benn lañ ko dolli am na beneen commune bu ngeen dende moom fanweer ak juróom-ñaar lañ ko dolli kon nag am na beneen commune bu nga xam ne jàpp nañ ne fa la yëf yi gën a taree fa la méttee moom li leen ëppalee bariwul kon ngeen xam ne am ngeen chance yokkal na leen lu tolloog 349 nouveau ménage yi nga xam ne dañ leen dugal ci RNU. xam naa di ngeen ma baal tuuti comme mi ngi gën a guddi. Ah, dañu fiy tënk rek kàddu gi joxe euh, laaj yi joxe contribution yi ndax olof du ma olof waaye damay jéem a làkk olof li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin bi te li ñuy wax ni am na solo am solo bu toll nii dinañ ko gën a yaatal ci quartier yi dinañ ko gën a yaatal ci quartier yi délégué de quartier yi bu ñu demee seeti leen ñu ànd ak ñëpp ñu ca war a seeti le conseil de quartier ak acteur yëpp bu boobaa waa koñ bi yëpp dañuy toog mu gën a leer kon daal li ma bëgg tey ñu jàpp ku ñibbi ñibbi waale ko bourse de sécurité familiale filet social dafa bokk ci jukki yi nga xam ne moo nekk ci RNU yàlla dogal na nag président Macky Sall bi mu koy andi mi ngi toll woon si vingt cinq mille ñetti weer yu nekk mais léegi yokk na ko ba si juróom-ñaari junni weer wu nekk ñetti weer yu nekk trimestre bu nekk loolu yëpp pour xam jafe-jafe yi askan yi di dund mu yëg ko

yeneen programme mu résilience ci lañ leen di jëlee na ko yàlla traité ko bu yàlla dogaloon tey aw lakk-lakk am ci biir kër kooku itam foofu lañ koy daal di dugal ñu mën ko faa jëlee mën ko dimbali kon ci tënk daal asalaamaaleykum